الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi daara ji ñu ngi nuyu jullit yépp di sant yàlla bu baax ndax li ñu doon séentu dem ba ngelaw ñaari fan ak benn fan ak ñetti fan a des yàlla yàlla def ñëpp fekke tal ñi jiitu ji yàlla jéggal leen mbokk yi ci yàlla kon euh, mbokk bi am na lum laajoon nu am luñ ko ci détailleel waaye li ñuy jiital mooy laaj bu njëkk bi mooy euh, lan mooy tegtale ci woor yow mu arafa liñ ci wax ci ay njariñ waa liñ wax ci ay njëriñ ci woor yow mu arafa bis ba ñuy taxaw arafa jot nañoo leeral li ci boroom xam-xam yi wax ci ni yow mu taasi mooy sa bisub juróom ñeenteelu fan bu ñëwee woor ko ba tët nga ka nekk màkk nag moom bis ba waa màkk di taxaw ni te jii la arafa mu ni bis booba lay woor ki maaseewul ak màkka seen gisiinu weer te mu sukkandiku ci ab mas ab bu wér kooko juróom-ñeenteel fanam lay woor am na nag ñu mënta dégg loolu waaye am na ñu ko mën a dégg arafa boobu nag daa bokk ci bis yi nga xam ni ngalawaay eh, bul bokk ci ñi nga xam ni weeru koor kese kese lañ mën a woor yeneen yi moom dañuy sëgg rek bàyyi mu jàll moo xam ci asura la tamxarit moo xam ci nisfu saabaan la moo xam ci rajab muy kasuba moo xam muy bu ñu waree juróom-benni fan ya moo xam yeneen yépp déedéet moo xam juróom-ñetteelu fan ci weeru tabaski wi nu nekk kooku it eh, ëpp naa bañ a woor mbokk yi ci yàlla kon woor yow mu arafa mbokk mi ndax farata la déedéet moom dañ koo sopp ci ki ajiwul màkk même ki aji màkk sax moom taxul ñuy wax waaye ki nga xam ni mu ngi ci réewam moom demul aji te di jullit euh, sopp nañ ci moom mu woor yow mu xarafa ndax lu rëy li ci nekk jëli nañ ci abi xadaadata anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala sawmu yawma arafata yukaffiru sanatayni maadiya wa mustaqbila waaye wa sawmu asura yukaffiru sanatan maadiya axrajahu ahmad wa nasaa'i gis ko ko yow mu arafa woor ko day far bàkkaar yi at mi weesu waaye day dox sa digganteeg at mi jub si pour nga bañ a def bàkkaar loolu kay jar naa woor woor yow mu arafa day kaafara day far bàkkaarum ñaari at mi nga weesu ak mi nga jublu mu ni bu dee asora nag moom at mi mu weesu moom lay far ay bàkkaaram waaw koor yi nga ne nag doo ko def mukk kooru naafila yi amul solo waaye yow daal bala ngaa mën a woor ñépp woor nga xam ni doo gis aw ñam sa xel du ci nekk wala rus ngaa daal lekk bëccëg waaw loolu de def naa jéngeen yi ñoo koy def mbokk yi ci yàlla kon ah, bés boobu nag dañoo wax ni wa zunubu lati yukaffiruha زومها فاليوم أو غيره من أيام إنما هي الصغائر وأما الكبائر nag fala yukaffiruha ila tawba mu ni bu ñu ne bis bi woor ko day far bàkkaar yi ñaari at yi nee na mooy bàkkaar yu ndaw yi de bàkkaar yu ndaw yi waaye mbokk yi rey yi yi bàkkaar yu mag yooyu nga xam ni dañ ko tudd ak kabair nee na yooya eh, li tax ñu jéggal la ko ne da koy tuub yàlla bari yërmande lim digge woon ci ku rey bakkan nga mën a dem ba tuub tax ñu mën laa jéggal eh, bakkan bi nga reyante tey ko waaye fi ñu nii sarti tuub yaag yëpp ñu bari xamuñu ko amuñu sensu tuub ko dañuy bàyyi noonu ba faatu rek te rey nit daa bari ay façon lool toog ci sa bureau rey ay nit yomb na lool ndax la tax kooko dee yaa joxe ndigal li toog ci sa daara rey nit yomb na lool ndax la tax nit ko dee sabab ba ci yow la jóge yaa def njibar gi wala yaa def liggéey ba wala yaa def nangam walla yaa santaane mbokk yi kon te ku rey nit ci jaarale ko ci ñaan dañ koy considérer ku ko rey jaarale ko ci jaas yi ki jël jaas yi rey nit ki moo ki doon def ay pexem def ay tëpp tëppalam tëpp tëppalam ba la mu antu te loolu mbokk yi mi ngi am mi ngi am moo tax yàllaay waaye asbaab yi ci lab jaam di ame tuyaaba ci lab jaam di ame bàkkaar suñ bàkkaar yu bari yii nag mbokk yi luñ la ni boo ko defee mu effacer la ko dawal ba daanu ngir nga def jëf yu rëy yooyu waaw ku ko man nag suba ci gaaw bi danga koy woor woor woor dibéer rawatina la ginnaaw senegal yi ñu ci ëpp ñëpp eh, altine la ñuy julli incha allah kon noo ngi saraxu di ñaan rek ku tële nag woor ñaari bis yi ah nga nga nga woor muy dimanche ji incha allah mbokk yi ëpp naa bañ a woor mbokk ndax lan ah xamoo ndax mooy sa mujjug fekke ci yow mu arafa wala diir ndéem daa nga ko woor woorat ko dolli ci ndéem daawoo ko woor woor ko nga tàmbalee ko fas yéene bu ñëwatee nga woor ko alakul aji waaw loolu bokk na ci li nga xam ni eh, moom lañ doon jiital ci yow mu arafa kon sopp la rek yow mu asuraat ba tey dañ koo sopp rek waaw moom it dañ koo sopp rek waaw yonent bi alayhi salaam lu mu waxan suumu yowma asuraa wa xaalifu fi il yahuda wa suumu qablahu yowman aw ba'dahu yowman arju ahmad na ngeen woor bisub fukkeel fanu tamxarit na ngeen wétan nag yahut niñ koy defee mën ngeen a woor ko jiitu boole koog moom wala ngeen woor bis ba ci topp ginnaawam daana wax lu bare bari xaalifuhu man tasabbax bi xawmin fa huwa minhum na ngeen wuutee ak ñii dul julit ndax ku niru niru lu aw nit te ñooña nga bokk ak colog lépp da ko daa contrôler ngir bañ julit ji ko nirul ak ak ak ak siif ji surtout col goo xam ne xam ne nii boo ko solee rek jàpp nañ lii ab siif moo ko moom moo koy sol waaw alaa kulli haal ba ci tegu lim lu mu waxal am na luñ ci waxal li muy laaj mooy ginnaaw weer wii fan yii yàlla bëgg na ku ci def lu baax ni ko bëggee bëgg ko ci yeneen weer yi yu baax yi euh, yàlla jël maanaam ndax man nee na li man daa bariwul barilewul fakir la moom day yelwaan nangam ak nangam waaw lu ñëpp kenn ku ci nekk rek fakir nga ci kanamu yàlla fàqir nga ci sa benn mbokk nit koo xëy ëpp ne la ku ne gis nga ku la ku ne gis nga ku la ëpple kon bu alayhi salaam noonu aleykum bistinaa il maarufi fa innahu yamna'u masaari asu di def lu baax day tax sëg mujj rafet te mujj gu rafet mooy dekki door a jeeg ak mbugalum mbugalum sunu borom dekki fekk bokkoo ci waa sawara dekki fekk yaa ngi dekki waa li ngëm loolu mooy mujj gu rafet waaye boo ji boo mësooree nekk njiitu réew ba faatu ca taxul sëg mujj rafet de loolu kese déedéet garat bu gën a kabe nga doon ko waaye boo dekkee jàmm jeex na mbokk yi borom mujj gu ñaaw ngi noonu borom mujj gu ngi noonu nit dund bay bëgg a faatu at yu mujj yi mu torox ñàkk yorul dara dara ñu laa ah, diw di mujam gi ñaaw na ah loolu kay du mujj gi ñaaw ndax bu lu koy faral bàkkaar nag bu dee luy tax kenn du ko bëggal yomal am na bu dee loola mooy sabab mu texe natt ba mooy soog a ñëw mooy tax mu texe kooku mujjam rafet na ala kulli xaalit waaye noonu xamuñu ci dara bu boobaa waaw gis nga ko tax alisalaam Eh, laa wax ni jàngale na lu ne inna laa taala aqwaman inna lillahi taala aqwaman eh, yaxtasu um bi niami ngir lan eh, li manafixin ibaadi li manafici l ibaadi waaw yuqru'a fi ma bastaluha wa fisamanahuha nasaxa min um fa xawalaha ila xayrihim nee na suñ boroom am na ñum jagleel ay xewal jox leen ñu am ba pare tal macha allah ñu am lool waaye nee na li mën a fi alee baa di waaye ngir ñu jëriñ ci jaami yàlla yi tax de nee na bu fekkee joxe wuñ ko lu dul téye ko rënk ko nee na nasaaha minhu yàlla nocc ko bif ko ñoom fa xawalaha mu daal koy joxaat ila xayrihim ña ca des ñaata ngay gis ñoo xam ni ba ñu amee dañoo soppeeku lool lool lool kuñ sëñu ta bañ a defal defi du rafette eh, bu fukka juróom yi def bàyyi la ci des wala ne la mënuñu ko ñi nga xam ni moom sañ nga gàntu nga gàntu ñoom gàntu gu ñaaw ñaawa ñaaw ñaaw ñaataa fi am al bew waaye mujj yoratuñ dara dara bokkul ak ki ma wax léegi nga xam ni moom yàlla moo ko nattoo ñàkk gii ngir raxas ko waaye bokkul ak kii nag rënk alal ji alayhi salaam moo ko wax alis la bu wér boo xam ni euh, rawaahu ibnu abi dunya ak ñeneen ruwaat albani wéral na ko waaw kon ndekete la wax démb ni suñ suñ man su daana ko wax ku ab supeer suur kay bu ñu la joxee ab boole dañ laa sedd loolu loolu wax na dëgg wax dëgg kii wax nag ni moom moom fan lay mën a defe lu baax ndax koo xam ni fi nga toog boo fi jógee yow dañ laa puus eh, gisoo kon loo mën a defal loo mën a jëriñ nit Euh, hadis bi daa wax ni ala kulli muslim yonte bi ni ala kulli muslimin sadaqatun xaala arayta in lam yajid dañu waaw julit bu ne nay saraxewaay ci waxin mun waaw bu fekkee amu ko nag mu ni ko kon yata yatamilu bi yadayi fa yanfau nafsahu wa yatasaddaqu kon mu dem liggéey ci ay loxoom dara loole mu liggéey nee na mu saraxe ca mu ko waaw bu fekkee nag mënu ko mënut dem liggéey mu ne ko kon yu inu sal xaajatil maaluufa na dimbali koo xam ne soxla na mu dimbalee ko moo xam gis waaw su fekkee nag moom mënul lool mun ko kon léegi yaamaru bil maaruf awil xayri léegi kon na wax ci aw làmmiñam boog ni nangam baax na de def nangam waaw nangam day lu lu bari aw yiw la kon na wax mu ni ko waaw bu mu loolu nag seettitit mu ni ko yumsiku an charri fa innaha sadaqatun xanaa na jàpp boppam ci lépp luy lu bon loolu sara ci moom bu boobaa mbokk yi kon jullit moom lum def rek mën na caa gañe kenn bokkul tële yii yëpp yow mi amam xel kay bay bay wax ni fu muy jële lu baax ah ndekete kon boo tëlee lépp lépp lépp mu munoo amal kenn kenn kenn njariñ yow tëyal sa bopp ci lépp loo xam ni aw ay la sa bopp ci lépp loo xam ni bàkkaar la sa bopp ci lépp luy nuru tooñ sa moroomu nit nit laa wax teel sa bopp ci lépp lu yàq ci kaw suuf gis nga ko ak ni jamono ji yàq yomb fi ak yàqule ak yàqale ñu yombe yow fexeel ba mucc ci loolu ndekete kon bu boobaa ñu ngi lay bindal euh, sawaabu sadaka mu yoolu sarax gis nga ko donc Abdullahi al Awsani dafa wax ni damaa dajeg Bilaal Bilaal mi daan noddal ku tedd ki ca Halaba ma ni ko yow Bilal waaye nettali ma dara ci euh, sunu yonent bi moom lu doon dunde alayhi salaam munu maa amul dara man maa nekk nag moom ba ko yàlla yónni ba ni mu faatoo waaye léeg-léeg day li muy ñàkk bu nit ñëwee ci moom di julit mu gis ko mu rafale dama naa Bilal demal gaaw nga lebi nga jëndal ko ci bordu nga jox ko nga sàng ko te fexe fexe lu mu lekk seet alayhi salaam nekkoon faqir xëy du am dépasse ay weer waaw loolu lan xel ci ndox mi wét ci tàndaram ji lekk rek ndeysaan gis nga ko tax ci mooy ba eh, an muawiya ibnu abi sufyaan dafa wax ni yonte bi nee na inna rajula la yasaluni shay'an fa amna'uhu ata tasfa'u fii fa tujaru abu hurayra wax ni ah, yonte bi jóg na benn bis fii salaatin wa xumna maahu mu jóg nit nu jóg mu wax benn arabi yu fekk mi ngi ci biir julli gi ni allahuma irham nii wa muhammadan wala tarham maana ahadan seet waa ji xatal na de waa ji xatal na waa ji nee na dañuy julli ba ñu dégg waa ni ay yàlla maa ngi lay ñaan na nga yërëm Muhammad mii ak man dong dong nun ñaar kese alayhi salaam daal di salmal ni ko ah, laqad xajarta waasian yuridullah wa rahmatullah mi ngi bëgg wax kooku ni ko yaa ngi xatal lu yaatu nag luy luy lu yaatu yi yërmande yàlla ji ngay xatal xam nga waa ji nag wax dëgg yàlla xanaa loo xatal xatal da nga naa euh, yërëm ma maa ngi Muhammad ak jullit yëpp wala nga bool ci sa benn mbokk sax waaye déedéet nee na ko nun ñaar kese mbokk yi kon dëkk jullit daal mbokk moom mooy jullit kon bis yu tedd yi waaye dimbalu leen ñu woor gaaw beeg dimanche bi rek am naa waxtu dam nanu ñu yem foofu ba ñëwaat incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi alkarimi silmilan alastighadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani